asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa mbokk yi ñuy topp ci seen chaîne bi di Serigne Djily TV di fi taataane xam-xam yu am solo yi nga xam ne day bàyyikoo ci fawaidul asraar te mooy njëriñ yi nekk ci e, mbirum lasraar ak ya aju ak xam-xam ya mu làmboo yëpp rawatina yéen ñi nga xam ni yéen a ñuy topp ci mboolem plateforme yi ñu ne muy TikTok muy YouTube muy Facebook bu ci mën di doon wéy leen di abone te di yaatal ngir ngeen di mën a jot li nga xam ni moo di jataay yu am solo yi ñuy biirante ak yéen tey nag ñu ngi ak sëriñ Jili Abdul Qadir Ba fës yéenee dikkaat ci jataay bu am solo bu ñu fas yéenee waxtaane ci rab rab nag mbokk yi tey danañ ci waxtaan ay tomb yu am solo waaye laata loolu damay bàyyi sëñ bi nuyoo ñu door a dikk nag ci tomb yi ñu war a waxtaanee door a dikk nag cafram fàcce sëñ Jili maa ngi lay nuyu. Euh, ñu ngi lay fay sañ Moussa di wax mbokk yi ñuy déglu ci internet bi comme ni nga ko waxee rek rawatina ci chaîne bi muy Serigne Djily TV ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di leen ziara rawatina na ñi nga xam ne ñoo abonné ci chaîne bi di fi taataane xam-xam di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. waaleykum salaam taala wa kon mbokk yi mu ngi noonu kooku mooy Serigne Djily Abdoul Khadr Ba kon wéy leen ni ma leen ko waxee rek di topp seen bi nga xam ne mooy Serigne Djily TV rawatina ñi nga xam ne dañ ciy topp ngir taataan xam-xam bu am njariñ te mu wér lool. Serigne Djily laaj bu njëkk bi nag damay dikk wax ji dafa bari lool ci diggante rab jinne cheytaan léegi mal farqu bayna jinn wa cheytaan wa rab léegi lan moo tàqale jinne ak cheytaane ak rab ndax am nañ wuute wala amuñu wuute. tey moom dars boobu dañoo bëgg tomb bi ñu war a jël moo ciy jiitu alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah waaw li nga laaj day yitteel na nit ñi lool te it mel na ni coow li bari na ci waaye nag coow li li muy bari bari bari li rab di yàq ëpp na loolu ndax alquran ci boppam moo ñu wax ne inna shaytaana lil insaani aduwun mubin mm-hmm. maanaam seytaane kat mooy seenum noonu mhm. te seytaane ci jinne yi la bokkoon kaana minal jinni fa fasaqa an amri rabbihi mhm. alxuraan wax feneen ne in huwa illa rajulun bihi jinnatun fa tarabbasu bihi xatta xiin kon ku jinne di jàpp di ko sadd alxuraan tudd na ko ci ay barab yu baree bari te lu yàgg la ba daanañ ko tuumaal yonent bi sallallahu daan wax waxyu mhm. bu jàngee ci sorat soratu noox Euh, euh, fi alxuraan di wax ne innahu kaana rijalun min al insi yauduuna bi rijalin min al jinni fa zaaduhum rahaqa maanaam nit yàgg naa jëflanteeg jinne ci jëflante yoo xam ne suñ borom tere na ko loolu benn benn la ci kon seen relation yàgg na na fa alxuraan waxee bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jinne yi ci diine mm-hmm. wax ne ña leen woon bokk na ci abu yusuf da mel na ne kooku ba léegi mi ngi dund am na foo alquran wax ci sooratu no wa inna minna minna salihun mm-hmm. wa minna duna zalika kunna taraiqan qidada mm-hmm. kon loolu lu wér la ci alquran lu yàgg la te it ñoo jiitu doom adama ndax fi alquran waxee ne wa ma xalaqtu jinna wal insa illa li yabudun mm-hmm. alquran fu tudd jinne rek eh, fu mu tudd nit rek ak jinne jinne lay jiital xañ na duñ ko lool rek maanaam fi jinne bàyyi ko ak seen bind na muy mel lool rek doy na émission waaye nag dañ ciy joxe ab tënk rek mm-hmm. a ak ak fàttali nit ñi mm-hmm. ak loo xam ne ni danañ ko mën a jàpp ci jinne mm-hmm. kon euh, jinne lu sax la lu am la te euh, relation ak nit dafa yàgg dafa yàgg relation bu ne am na ko ak doomu aadama ndax boo seetee yonent bi wax na ne jinna dana daw wala seytaane dana daw ci ci ci doomu aadama nit deret di dawee ci biir nit kon nga xam ne kooku sori na ci sori na ci nit mhm. waaw maanaam boo xoolee xadis yi ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ci diggante jinne ak seytaane ëpp na ay junni alxuraan tamit lim wax ci tudd seytaane lim wax tudd ci jinne mhm. kon kenn xamoo nu mu kon loolu lu am la lu yàgg jaxasoo ak doomu aadama la mhm. dëgg la coow li bari na ci lool nag waaye mën naa ne lépp loo xam ne day gàllankoor doomu aadama moo xam xam na ko moo xam xamu ko mën naa ne quatre vingt pour cent yi ci diggante rab la ak jinne ak seytaane hmm. seytaane nag buñ koy wax mooy iblis mooy iblis hmm. iblis ci boppam jinne la hmm. waaw du maami jinne yi nag ndax jinne yi jiitu nañ ko xañ na yéeg gi ko suñ borom yéegal ci ci ci asamaan si jegeelal ko boppam ba mujj mu dàq ko moo tax mu am ci ak ràññeelu suñ borom beral ko turu boppam tudde ko seytaane moom it moom ay doomam ak sëtam ah, ak ñim yilif ci jinne yi ñuy dox ci ndigalam ndigalam nag mooy nuñ mën a yàqe doomu aadama ak ni koy gàllankoore ci am amam ak ci wér-gu-yaram ak ci digganteem ak nit ñi loo xalaat rek ah, jinne daf ko def ak seytaane mhm. jinne yi nag am nañ ay jullit mhm. am na jinne yoo xam ne bari nañ yoo xam ne ay jullit lañ waaye nag yi nekk yéefar ñoo ëpp fuuf te jinne maanaam ni mu ëppi nit yàlla rek ko ko xam mhm. moo tax maîtriser leen yombut nit ki da ngay am loo xam ci ñoom rek waaye ku taxaw ne dama maîtriser jinneem kooku da ngay wax lu neex ndax jinne yi ci boppam dañoo ëpp doomu adama yi fuuf ëpp leen doole fuuf te nit kat du gis jinne ci liñ baaxoo xam innahu yaraakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum maanaam ci liñ ci liñ baaxoo xam man nga koo gis nag ci ay fànn waaye liñ baaxoo xam li alxuraan wax innahu yaraakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum laa googu ngay gis laa naafiya hmm? bokkut ak lan dafa dàq waaye du dàq goo xam ne mutlaxan la maanaam loolu da ci bari xam dañ ciy juum bu ne woon lan in huwa wa qabiluhu min haythu lan tarawnahum kooku da ko dàq mutlaxan nit mën ta fexe ba gis nit waaye la am na ak sette ci ay fànn nag yu wutee wute euh, xëy na beneen émission daneen def xususiyaat nga xam dañuy wax mamlakatul wala alamul jinne spécial ñoom seen dund yi nag nangam ak nangam li ñu ci yàlla dénk ñu wax ñu wax ko waaye daal liñ bëgg a a leeral comme tomb yooyu nga wax mhm. euh, diggante rab wolof nag mooy wax rab wa rab moom amul ci baatu arab mhm. wala ci boppam moo koy tudd rab wala mu tudd ko ay àndandoo wala mu tudd ko ay gaay wala mu tudd ko ay rawaan waaw maanaam li tax mu tudd ko rab mhm. maanaam jaxasoo gim jaxasoo doomu aadama ba daanaka nit ki mënta tàqoog moom mënta tàqalikoog moom wala ab diir lay doon mu ñëwaat moo tax mu tudde ko rab mhm. moo tax ñu tudde ko rab ak seenug mën a yàq nit ki bu nit ki dafa mën a rabe ah ak mën a yàqam tax kon buñ ne baatub rab wala baatum àndandoo rek loolu ba tey ci jinne la bokk mm-hmm. mën ngaa tënk wax ne kon rab kat mooy jinne ji nga xam ne mooy yàq doomu aadama mm-hmm. euh, jërëjëf euh, Serigne Djily euh, mbokk yi fàttali leen rek numéro bi mooy 77 743 30 92 sëñ Djily damay ñëw nag ci taqsimaat yi muy mbooleem xeeti xaaj yi nga xam ne melokaan yi nga xam ne ku jinne jàpp maam ku rab jàpp maam taqsi maam yan xaaj la waaw maanaam rab nag ni muy dugg nit ki dafa wuute dafa wuute ay duggin yu muy dugg nit ki am na ci ñoo xam ne ngelaw lay def ci ñoom dugg dugg ci ñoom am na ñoo xam ne ngelawal jinne mooy dugg ci ñoom waaye du ngelawal jinne mooy dugg ci ñoom ngelaw loo xam ne day ànd ak tooke mooy tax ngay feebar euh, di tayel maanaam ak di sonn am na jinne yoo xam ne duñ dugg ci nit ngelaw lañ lay sànni wala ngelaw loo xam ne day ànd ak tooke bu ko defee nga yëg feebar ci yow hmm. ab coono ak taayeel ak xeet yu mel noonu hmm. loolu man na mas naa ci am benn as ndaw soo xam ne bi mu ñëwee ci man nettali na ma ni ko euh, ngelawul seytaane dugg ci moom waaye mujj def di ko def bopp bi metti dafa mas di tuur ndox moo tax mag ñi daan aaye yu baree bari nit ki di ko def hmm. waaw ndox maanaam dox ba te waxtu timis la ko def dem ba fenn rek mu bëgg a tuur mu bëgg a saw mu saw bi mu sawee nee am na lu ko dugg ngelaw lu sedd lu ko dugg ci biir nee na mi ngi koy fàttali mi ngi koy fàttaliku ba mu jugee ci loolu la commencé nag di feebar feebar feebar yenn feebar yu bari la loolu ngelawal jinne koy def wala ngelawal seytaane noonu lay dugg nit ki ma ne ko nag boobu la la dugg xam ne boobaa da koy def ak wéridi moo xam bopp yu metti wala yaram yu metti wala nangam ak nangam mm-hmm. loolu benn xaaj la mm-hmm. na ci Euh, façon jinne yoo xam ne maanaam dañuy def lu mel ne al waswasa dañuy jax jaxe sa xel lu mel ni day am lu ñuy wax ci say nopp di ko jax jaxe loolu sax da koy jàng ci téere fiq yi xam ne kuy jax jaxe lu bari na ko bàyyi xam ne seytaane ko def waaw euh, loolu ñoom it dañ koy def nga xam ne day dem ba di la fàtteloo lu mel ne al xafla ngay fàtte lu bari wala ngay sàggante yenn sàggante yu bari bari am na jinne ñoo xam ne noonu la ñuy def nit am na ci ñoo xam ne nag li nga xam ne moo gën a metti ci nit ki mooy jinne yoo xam ne day dalay dugg yàlla may na leen ko nga xam ne day dugg nit ki am fenn fu mu toog ci nit ki hmm. yaa ngi dégg su dee jigéen ci wérul am na ñoo xam ne mën naa dugg sa biir toog ci nga xam ne doo am doom am na ndaw su suma masa suma masa ki ci loolu waaye bi ma ko bi ñu jëflantee jinne ci boppam jinne ji ci boppam moo ko wax ne mhm. sa biir bi sa biir bi laa toog moo tax bopp ba tey mënoo am doom te kooku léegi tey moom ñeent fukki at waaw ne waxal sëriñ bu ma bàyyee ma bu ma bàyyee dinaa la dinaa génn ci yow wax ko li daan def lépp xam ne bari na gàllankoor yoo xam ne ñoom ñoo koy def ci nit wala mu toog ci sam xel mhm. am lu maîtriser nga xam jekki-jekki da ngay mel ne du def ataxabut ah wa sar da mel maanaam di def crise épilepsie mhm. wala ngay daanu ay jël yoo xam ne ñoom ñoo koy def maanaam crise épilepsie yi ngay dégg yëpp quatre vingt quinze pour cent yi ñoom ñoo koy def xam ne da ngay jekk-jekk di daanu ay jël ñoom ñoo koy def mhm. am na ci ñoo jinne yoo xam ne nag ya nga xam ne dañoo soxor ba soxor mën nañ laa dugg duggin woo xam ne sa dañuy déformer sax sa yaram xam ne ah, ñu bari dañ dañ lay làggil maanaam benn sax benn partie lu mel ne achalal mhm. ah xam ne dañ lay làggil benn côté mi wala làggil solan wala làggil sa tànk wala déformé spécialement si jëm nga xam ne ku la gis xam ne yow mi wéru si jëm ji rek oh. waaw comme ñi nga gis ñi ñuy taxawal xeet yu deme noonu yooyu uh-huh. xeet façon jinne yu soxor a uh-huh. soxor ñoo koy def waaw kon xeet yooyu daal bokk na ci nit jinne ni muy dugge nit ki ak ak ci biir yaramam ak ni mu ko yàqale waaw ndax sëñ jili foofu am na lu mën a fekk ba du agsi foofu du la dugg waaw loolu mën naa nekk ci taqsim yooyu muy xeeti xaaj yooyu yëpp nga wax am na lu ko mën a fekk ba nit ki du àgg du ko dugg. waaw xam am waaw xam nga mooy mooy mo moo tax wala di wax ne maanaam euh, fegu moo gën faju fegu moo gën faju maanaam am na ay tegtal ak ay ñaan yoo xam ne bu fekkee duggagu la boo ko defee mhm. jinne du mën a dugg lu mu soxor soxor ak lu mu soxor soxor ndax moom ay buntu rek occasion lay am ci nit ki rek dugg ko maanaam ay maraaxil la mhm. jinna du jekk-jekk rek tëb dugg ci nit mhm. occasion lay am rek daal di dugg ci nit benn te loolu ci ak càgganteem la benn mu ñàkk am gàllaaj wala mu ñàkk a ñaanlu wala mu ñàkk am protection moo xam ne muy wax la wala lu muy takk la wala lu muy sangoo la mhm. xam ne ak càggante lay am ci boppam wala boog mu mu fekk leen foo xam ne waru leen faa fekk lu mel ne dem ci tëdd tëdd ci taatu Dakar wala di saw ci mbalit xeet yu demoon wala du tuur ndox mu tàng fenn nga xam ne loolu mag ñi daan ko tere boo ko defee nga am loo leen yàqal ñu walbatiku fayu ci yaw wala ngay dox timis nga xam ne waxtu la ñëw may di génn ñu sol la ngelaw wala ñu sol la wala ñu feeñu la jombal la waaw bu ko defee nag yooyu moo tax gàllaaj dafa baax ci nit mhm. dafa baax ci nit mhm. maanaam nit ki da ngay sàmm sa bopp sàmm sa njaboot sàmm sa alal mhm. sëñ jëlee nag damay jaar ci melokaan yi nga xam ni dégg naa ci biir euh, tomb bi ma la laaj ak bi ko jiitu ki rab dugg jinne dugg ko seytaane dugg ko buy nelaw yan màndarga lay lañ ci moom nan la koy dikkee ci ay nelaw ba mu mën a xam ne man lii rab la. waaw màndargo yooyu nag màndarga yu mat xam na te mën nañ cee indi ay tënk yoo xam ne moo ci gën a fees fi ne bari na euh, nit ki ñaq yu muy ñaq buy nelaw ñaq. di ñaq ñaq yenn ñaq yi di ñaq rek ñaq ñaq ñaq yi nga xam ne fu mu tëddee nelaw day ñaq loolu bokk na fi mu ne ci màndarga yi ne am muy seddaay muy tàngaay am na ñoo xam ne seddaay tàngaay fu ñu toll dañuy ñaq loolu benn benn la ci màndarga yi nga xam ne booy nelaw di ñaq ñaq yu metti déedéet am na ci xeeti ñaq yoo xam ne moom ah. loolu jinne koy def wala rab raba koy def li français tuddee cauchemar cauchemar mooy gént gént ci raglu ngay baril di ko def am na ñoo xam ne dañuy gént ba ci yàgg dañuy tëdd di nelaw ba ci yàgg rek jug yooxu ndax gént bu tiit ndax rab daf koy def loolu rab day day def xeeti gént yooyu moo xam ngay koo xam ne léeg-léeg day gént di naaw lu bari di naaw di yéeg ko wàcc di naaw di yéeg ko wàcc loolu jinne joo xam ne jinne ju dëkk ci jaww ji moo koy def nga xam ne fu daana fu mu tëdd ñaari fan ñetti fan rek dana gént di naaw loolu nga xam rab yu ko topp ci jaww ji la dëkk moo koy def la loolu fi ne am na gént yoo xam ne bokk na ci nga gént di euh, nekk ci ndox lu baree baree bari gént ndox bu fekkul loo xam ne loo maanaam foo tudd foo tëddee guddi gént ko loolu xéewal la waaye bu fekke day da ngay def nag foo tëdd guddi rek gént di sang wala ne ci ndox loolu rab daf koy def dañ la xamal ne rab wi la rab wi la topp rab wi ci ndox la dëkk. comme dëkk ci jaww am ñu dëkk ci ndox. am na ñu dëkk ci jaww ji am na ñu dëkk ci ndox mi am na ñu dëkk ci géej gi am na ñu dëkk ci jéeri ji. ci àll ci àll bi ci montagne yi. maanaam dañoo ëpp nit fuuf ëpp boo xam dafa jiggi dayoo. Hmm. waaw waaw nag am na ci da koy faral di ko gis. Mhm. nit di nelaw ba ci yàgg di waxtu. waaw am na ñoo xam fu ñuy nelaw rek ñi nga waxtu ñi nga waxtu di waxtu. kooku am na rab waaw hmm. ak ki nga xam ne day nelaw di yey bañi kàcc kàcc kàcc kàcc kàcc loolu tamit rab moo koy def hmm. ak tamit koo xam ne loolu moom bari na ñu muy dal ñoo xam ne da ngay nelaw gént di mel ne ku ne ci duus bi di saw di tuur ndox boo yeewee gis lal bi tooy loolu rab koy def loolu rab moo koy def hmm. ak di gént ak di nelaw ba noppi di ree ñoo xam dañuy nelaw di ree xam bu ñu nelaw dañuy ree rek xamal ne rab kooku am na rab ak di ak di nelaw di bëlbëli maanaam foo nelaw di bëlbëli rek loolu tamit boo ko dee def xamal ne am nga rab mhm. loolu daal bokk na ci liñ mën a tënk mhm. ne ku ko gént ku koy faral di ko def ci gént daal xamal ne am nga rab rawatina nag ñi nga xam ne dangay ngay gént di sëy lu baree bari mhm. am na gént di sëy boo xam ne nag loolu se naturel naturel nature la. nature la ci nit ki la nga xam ne boo nekke boo nekkee majeur moo xam moo xam moo xam góor gi la moo xam ko jigéen ki la war nga ko def waaye loolu bokkut ak koo xam ne dafa am faru rab wala coro rab ki nga xam ne dafa am faru rab ni ko gént gi di dikke day mel ni dëgg la jëmm lay doon nga xam ne booy sëy da koy yëg comme ni ngay yëgee booy sëy di génn ndox di génn lépp mhm. ah noonu la ko rab di defee kon boo ko dee def lu bari rab la jigéen ju koy baril di ko def nag bu ëmbee sax ñaari ëmb bi day yàqu xam rab moo ko yàq waaw yooyu man naa ne ab tënk la ci. Mhm. ci liñ mën a jàpp ci koo xam ne yaa ngi naaru di ko def wala nga am sa doom di ko def mhm. li ci gën nag boo ko teelee nemm ko ci moom rek nga teel caa jug ndax rab dafa am ay étape buñ mhm. koy faje am na foo xam ne bu fa eggee day dëgër bopp. pour nga dindi faj pour nga dindi ko day day dëggal bopp. dëgg la faaw mu bàyyi fay jeexit. jeexit xañ na danañ ci ñëw balaa émission bi jeex. incha allah sëñ Jili foofu danaa ci dikk ki nga xam ne day gént léeg ñu maam ndax bu ko rab jàppe dëgg-dëgg jàpp la muy gént di ko gis mu koy lu koy tiital lu raglo bu ca teelu la jog est-ce que nekkul lu mu koy won la loo xam ne ëllëg dana ko gàllankoor. waaw xam nga rab moom day yàq man mënumaa gëm rab buy defar donte léeg-léeg naan sama rab bi damay wan la dikk ak wala yooyu dégg mën na laa wan loo xam ne lu war a ñëw ci wala nangam ak nangam waaye rab moom li muy ëpp def mooy yàq képp ku ko am daal li gën mooy nga tàggoog moom ba mënta tàggoog moom it fexe wàññi yàq gi muy gi muy yàq mi ngi noonu kooku mooy Serigne Djily Abdoul Khader Ba Serigne Djily ne damay jàllaat ci beneen bi nga xam ni dafa aju ci bu fekkente ne dafa dal nit ki léegi rab dugg ko seytaane dugg ko jinne dugg ko. yooyu yëpp bu ko ci mën di dugg bu fekkee nelawul maam façon yim koy gaar yan la ba moom mu mën a xam ne man lii rab la. waaw ñaare ki nga xam ki nga xam ne rab dugg na ko te nelawul nan la koy xamee ci moom benn bu njëkk bi mooy lu ñu tuddee daanu jël la dafa am daanu jël ak lu ñuy tuddee épilepsie épilepsie nag ñaare ku ko am. diir ba mu koy def rek ngay xam ne kii feebar na bu ci jugee day yoraat am xelam bu dee daanu jël nag kooku ñaara rab wu dëkk ci moom la nga xam ne même jëmm ji même xel mi sax da koy desendil ba noppi topp nag di ko daanale ay jël la day yóbbu xel mi am na léeg-léeg mën na def jël yu jege mën na def jël yu sore épilepsie nag yi ci bare bari dañ lay wax dañuy dem ci garabu tubaab bi di ko faj waaye ñun yàlla dénk nañu saafaraam ba ñi ci jot a faj bari na kenn xamul nu mu toll. Mm-hmm. ndax man li la wax rek am na nag épilepsie yoo xam ne accident moo koy waral nga xam ne yuur gi ci boppam mooy yëngu. Mm-hmm. loolu bokkul ak épilepsie ba nga xam ne rab a koy waral. Mm-hmm. quatre vingt quinze pour cent yooyu nit daanu épilepsie loolu rab a koy def. bokk na ci nit belbeli xam da ngay bari looy belbeli sa yaram taayal loolu rab moo la koy def. am nga rab maanaam booy toog mel ne day am luy wëlis ci sa nopp bi day am mel ne luy am luy wëlis wala luy mbiib ci sa nopp bi loolu tamit xamal ne am nga rab li ñuy tuddee mettitu bopp bopp boo xam ne maanaam day metti mettit bu tara tara tar doom doomu tubaab boo naan du sedd rawatina nag ginnaaw tàkkusaan ak timis nga xam ne ci la lay gën a daaneel xamal ne am nga rab rab koy def dégg nga li ma la wax. Mhm. Euh, ak euh, li ñuy li ñuy tuddee euh, taayel tayel jékki taayel taayel gu métti sa mbagg yi di diis ah, ak sa digg ginnaaw gi di diis nga xam ne da ngay jékki mel ni ku sonn lool boo yeewoo doo mën a def dara loolu xamal ne am nga rab rab a ngi ci yow am na rab yoo xam ne buñ la duggee dootoo nangoo jaamu yàlla am na ndaw sama doon faj. moo tax rab dafa soof. sëñ Jili loolu bëri na loolu sëñ Jili bëri na ma ci maanaam laaj lu bëree bëri bëri dañuy jékki julli sax pour ñu def ko dañ koy waaj di ko waaj jaamu yàlla ji dañu mel ne ku ci tayal jékki-jékki nag farlu waaj ci maam loolu. am na loo xam ne rab dafa koy def am na xale boobu boo xam ne xale bu mënoon a jàng la maanaam bi ma koy ba ma koy faj rab bi li mu wax moom dana kii dafa mën a jàng dafa nangoo jaamu yàlla ah wax ne moom moo koy tere jaamu yàlla gi sax moo ko koy tere du julli ndax moo ko koy tere waaw ah, maanaam rabu yéefar bu la duggee du nangu ngay jaamu yàlla du nangu sax ngay jàng alxuraan du nangu ngay tudd yàlla waaw ak li ñuy tuddee dikkile dikkile ñu bari xam nañ ko mooy jekk-jekk rek merte kenn defu la dara wala ngay jekk-jekk pour am na ñoo xam ne sax pour nga ne ci biir nit ñi problème la pour nekk ci biir nit ñi kooku problème la day mel ne sa xol. moo ko doon man day am na ne boo nee ci biir ñi day am lu lay wax ni génnal génnal génnal ak bari yenn bari fàtte yi di fàtte yenn fàtte yu gaaw yi loolu fi mu ne arab daf koy def yooyu daal ci tënk mën naa gën a yaatoon na loolu nag mhm. waaye loolu bokk na ci li nga xam ne ku ko nemmiku ci yow xamal ne am nga ko te war nga ko war nga cee jub mhm. waaw jërëjëf sëriñ Jili ci sara bu am solo boobu ci képp ku rab gaar ci boo nelawul gannaaw bi ñu leeralee kuy nelaw si ñi nga xam ne bu koy gisee rek mën na caa jóg xam ne rab la waaye ki nelaw leeral nga ñu si kon sëñ jili maanaam ki siñ yii yëpp feeñ ci moom wala muy door ci moom wala mu yàgg ak moom ndax am na fu muy toll dindi ko dana wees wala dana jafe wala bu ñëwee mën nga ko cee dimbali ndeem wër na ci ba dajal waa am na rab yoo xam ne nag tàqalikoog nit dafa jafe lu jafe-jafe la danañ ci ñëw ci kanam mm-hmm. moo laajee sa dernière question bi. Mm-hmm. am na rab yoo xam ne tàqali koog nit dafa jafe. Mm-hmm. man léeg-léeg nit dana ñëw ci man mu xool ay mbiram ma ne la mënuma laa faj. Mm-hmm. waaw ndax man li may wax rek day doon loo xam ne. lu mën a nekk lay doon. tey lu lu mën a jëriñ nit ñi ndax nit ñi dañoo sonn ci sëriñ xam ne moom ku ñëw ci yow rek nga encaissé ñun bokkuñu ci ñuy def loolu. waaw leneen di ñëw nga ne ko. waaw man mënuma ci dara mënuma ci dara waaw. mbokk mi ngi noonu loolu moom daa doon lu wér loo xam ni euh, lu am solo la kon yéen ñiy wéy di topp Serigne Djily TV ci YouTube bi ak ñi nga xam ne yéen a ñuy topp ci mboolem plateforme yi TikTok ba ci Instagram Facebook fu mu mën a doon wéy leen di partager tey abone ngeen mën di jën jot njëriñ ñi nga xam ne mooy bàyyikoo ci jataay yi nga xam ni Serigne Djily ngeen ci àndal incha allah kon sëñ Djily damay jàllaat ci sama beneen question bi nga xam ni dana dikk ci rab ak rabu cosaan lan moo leen wutale ak it lu ci nekk bu gaaree nit ki naka la ñuy mën a xamee lii rabu cosaan la ndax dana jariñ wala dana lor. waaw xam nga mën nañoo far boole yëpp rek ñuy tuddee rabu cosaan dafa am rab boo xam ne nit ki dafa ko judduwaale ak rab boo xam ne dafa gaar nit ki maanaam da koo dab mm-hmm. ak rab boo xam ne da koo sol ngelaw. rabu cosaan nag buñ koy wax mooy rab yoo xam ne dañoo ànd nag say maama ki maamaat daan jëflanteeg say maama ki maamaat ci jëflante yi wuute nag mm-hmm. waaw bu fii ci Sénégal bari na si ñoo xam ne yor seen xam maanaam sa waxuma ko nag pour saboter kenn mm-hmm. xam man duma ko digal kenn waaye duma ko tere kenn rab yooyu nag kenn mënu koo teqale ak nit ku la ne mën naa ko kooko waxul dëgg rabu cosaan ah. kenn mënu koo teqale ak nit waaw moom kay da def loo xam ne ah duñ na mën a yàqal parce que day bokk ci yow waaw na mu ne bokkul rab yoo xam ne yàllaa koy booleeg yow ñu tudd alxarin ñu tudd alxarin loolu ba tey bokkul ak rabi cosaan loolu alxarin moom bind la boo xam ne yàlla moo ko bindaale ak yow loolu leen tudde alxarin bokk na ak rab yoo xam ne dañ daan jëfa jëflante say maam ak maamaat ñoom ñu jur ay doom topp loolu dafay mel ne ci famille bi la ñu bokk day mel ne yéen bokk famille ñoom loolu lañ lay jàpp koo xam ne pour nga tàqali ko ñoom gisuguma ku ko ku ko man de moom kay li ngay def mooy fexe ba liñ lay yàqale ñu wàññiku waaw dafa mas a am sama dafay am sama benn xarit ma nettali moom it ci day yëngu ci wàll wi bim bim bim bim bim ah, fan dafa am rakkam bu daanu. Mhm. da jékki rek daanu bim daanoo yónnee na ma audio yeeg yëpp bim daanoo muy wax ak jinne ji naan ko yow la kan ak foo dëkk ak nangam nangam waaye lim ko wax dana ko yow sa maam diw ah ca guy ga seen dëkk sàngam yaa ngi may dégg da ngeen daan def. Eh, sa maam da daan def saa yu ne mu am bu lekkee sànn ñu ay yax yax yooyu lañ daan dundee moo tax ñu toog foofu léegi nag loolu amatuñ ko moo tax ñu tasaaroo ci biir njaboot gi. Eh, yaa ngi li may wax ñi nga xam ne am nañ xam rab laa wax de waxuma waxuma gone yi gone gone yi gone yi tàndale la ñi nga xam ne am nañ xam-xam laa wax li ma wax xam nañ ko bu baax rabu cosaan moom kenn mënu koo teqaleeg nit man fi ne jàng naa ba jàng nit ñi sampe. nit ñi samp xam waaye duma ko def waaw léeg-léeg nit samp nit sant sant ma ko waaye duma ko def waaw moo tax rabi cosaan kenn mënu ko taxale da ngay fexe ba yàq gi ñu la yàqal ñu bañ la ko yàqal ñu bañ laa yàqal mhm. loolu loolu it fajum boppam la mhm. du luñ mën a wax fii ci ci ci kaw mbir bi la léegi ji la foofu dina am lu ma fi dugal ndax euh, da nga koo cof léegi sax nga baal ma ci doggi muy euh, ngelaw ak seytaane liggéey bi muy liggéey muy rab ndax dana liggéey ndax jàngoon alxuraan waxoon nañu ko yu allimuna naasa sixra jooja mel na ni kon ñoom jàngal nañu nit ñi nu ñuy liggéeyee lu bon maanaam xeetu liggéey yi rab di liggéey ak xeetu ngelaw yi muy bàyyi ci nit tooke googu maanaam yooyu fa bëggoon naa nga dikkal ñu ci mandarga yi. waaw mandarga wax naa la ko mandarga yi daanaka li muy def ci nit eh, ñoo bokk léegi nag yow mi nga xam ne yaa yaa ciy yëngu yaay xam. nan la duggee nit ki. liggéey nit dafay liggéey maanaam liggéey bu liggéey buñ def rek liggéey buñ def moo xam xaatim la moo xam sunguf la moo xam lu mën a doon ah am na jinne yuñ ci taw kii jinne koy doxal faw jinne yi ñoo koy doxal am na ndaw su ma doon faj fii maa ngi turum ak lépp bi ma koy bi jinne ji lim li mu wax dana doo ko tuddal tante ji nga xam ne moo ko ko def tante ji nga xam ne moo ko ko def doo ko ko tuddal nga xam ne xeetu boole lay doon ci ñoom ndax ñoom dañuy dox ci loolu dañuy dox ci baatin waaw maanaam da ngay taw kiil uh-huh. xam ne dañuy si àll dañuy tudde al azima ak at tawakkul yooyu dañ ci ñoom dañ ci dañ ci dañuy duggaale ci biir fii ne na ci yoo xam ne ñoom ñoo koy liggéey yoo xam ne ñoom ci boppam dañ ciy ànd ba daanaka duñ ko sañ bañ dañuy dëkk ci jëmm ji nga xam ne sañu ñoo génn jëmm uh-huh. ndax ñoo liggéey bi ñooy ànd waaw moo tax ma ne la ci tàmbali bi. lépp daanaka lépp loo xam ne day gaar nit rek man nga ne quatre vingt pour cent yi wala quatre vingt quinze pour cent yi. Mhm. diggante rab la ak jinn ak seytaane ndax kat yonent yàlla yuusuf ba ko yàlla tegee natu ba tegu ko kenn ku seytaane dana rab bi anni masanna ya seytaan bi durrin wa azab mhm. waaw mhm. moom la ko teg de waaw kon nag yëf yaa ngi noonu. Eh, sëñ Jili loolu leer na mel na ni foofu lañuy ñuy taxawandi kon sëñ Jili rab daal xeet yi muy doomu aadama ci luñ mën a xam ci kaw ak ci luñ mën a xam ñàkk a xam te muy mbiri biir bari na waaye nag looli yi ànd ak loolu yëpp ndax ku mu dalak ku mu dalagul ku ci teel a ñëw ci yow da nga ko mën a dimbalee loo xam ni dana mucc ci rab ndem yëgugul benn siñ boo xam ne nii bu koy gàllankoor la. waaw xam nga maanaam rab moom. Mhm. maanaam ba ci jigéen joo xam ne dafa ëmb boo gisee ñu ne rab kii du ko judduwaale rab dina fekk liir bu ne ci biir yaayam mu dugg ko mu dugg ko bu defee nga xam ne da ko judduwaale ba tey loolu lu naqaree faj lay doon man loolu li ma ci man bu fekkee day daanu jël moom man naa fexe ba jël bi arrêté waaye loolu ñu tuddee rab bu judduwaale moo tax ñaare nit ki bu tolloo fend bu ëmbee. Mhm. dañ koy sàmm mag ñi dañ ko daan sàmm. dañ ko daan sàmm ak boo jotee sa soxna yi nga war a wax ak musla yi nga war a def ak mhm. yooyu yëpp lañ bàyyi moo tax jafe yu bari ñu koy am mhm. nag léeg-léeg day dem ba déforme nit ki boobaa wala nit nitoor la koy tudde nit nitoor nit nitoor la koy tudde waaw waaw kooku tamit faj ko faj ko yombut mhm. mm. waaw kooku faj ko yombut rab yi nga xam ne mooy gaar nit ki nag nga xam ne moo ëpp benn li tu tudde farlab wala corolat wala mu sol la ngelaw wala mu def la feebar wala mu lay feeñu yooyu moom yi ëpp mënees na ko mënees na ko saafara ci kàttanu suñ borom. ku mu dalagul mën nañ waaw ku mu dalagul it mën nañ laa defal taxsin boo xam ne euh, du la dal Sénégal nag neexut a ñaane ndax euh, rab ci boppam wala jinne dañuy toj dañuy toj gàllaaj fi mu ne. Hmm. dañuy toj gàllaaj dañuy yàq saafara léeg-léeg mën ngaa faj nit. li koy jox du ko jëfandikoo ah léegi-léeg ñu yooyu dañuy dal dañuy jinn yi dañuy wax ne maa ko tere maa yàq téere bi maa tax boo ko joxee saafara si ko sangoo maa koy tere nangam ak nangam yooyu yëpp rab daf koy def moo tax am fajam du caaga ne da ngay ñëw benn yoon rek comme ni ko gaa yi defee dañoo yaakaar ne dañoo dafa yomb waaye du du lu yomb lu faj rab waaw lu jafe-jafe la te looy topp la du caaga ne benn yoon rek mu ñëw demaat déedéet looy topp la sëñ Jili euh, jataay bi nag euh, xam naa ni waxtu wi mat na euh, ma bàyyi nga tàggoog mbokk yi ñuy topp rek ak message bi nga leen di yóbbante su ko defee ñu tej jataay bi incha allah dig leen beneen tomb. waaw di sant bu baax ci dalal gi ñu dalal ak laaj yeeg yi ngir dimbali ñi nga xam ne ñoo topp ndax nit ki lum xamul mm-hmm. xamu ko rek mm-hmm. waaw nit ki mën naa noonoo dara. wala boog mu mañ mu mu bañ dara fekk loolu ñàkk xam la te rab moom nit ki da ko war a bàyyi xel saa yu nekk ndax li ëpp liy gàllankoor nit ñi rab la lépp loo xalaat ne rab du ko def nit rek dana ko ko def ci gàttal waaw kon nag ñu bàyyi ci suñu xel bu baax nit ki danga ngaa war di sàmm sa bopp loolu la mag ñi wax di sàmm sa njaboot di sàmm sa alal di sàmm sa yëf mooy tax. yàqu-yàqu moom mënta ñàkk waaye mooy tax bu ñëwee rek du metti du diis mhm. di leen jox dig daje ci beneen tomb mhm. yoo xam ne dana yitteel nit ñi mhm. wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu Serigne Djily Abdoul Khadr Ba mbokk yi mu ngi noonu tey tomb biñ leen indiloon yéen ñiy topp seen chaîne bii di Serigne Djily TV ak mboolem plateforme yi nga xam ni ña nga ca rawatina TikTok kon tey tomb bi lañ indi woon ci wàllu rab ak fànn yi nga xam ni moom la làmboo yëpp na waaye nag ëpp na lii ni ko sëñ Jili waxee ab tënk la rek ci luñ mën a waxtaanee ndax waxtu la kon ñuy ñaan ngeen woy di gën a abonné tey yaatal ngir baaxe képp koo xam ne nii xëy na li nga mos ci waxtaan wi bëgg nga ko mu mos ko nga jottali ko jataay bi nga xam ni mooy nga partagé ko video bi incha allah numéro bi ngeen di jotee Serigne Djily nag ngir laaj bi ngeen ko bëgg a laaj wala lu leen gaar wala lu leen dal ci biir waxtaan wi ngeen dégg ci seen bopp yëg ci seen bopp jokko leen ak moom ci 77 743 30 92 77 743 30 92 ñu ngi wàcce foofu kàddu yi di leen digaat beneen jataay ñun ak Serigne Djily ci Serigne Djily TV incha allah ba beneen yoon jërë ngeen jëf.